dellu kañaat bakkaat wayaat dellu sulliwaat ndami soxna jaaraaki jaloorem nu ñaaxuwaat maam jaara ma dellu kañaat bakkaat wayaat dellu sulliwaat ndami soxna jaaraaki jaloorem sa wàccuwaay am fi ci ndigal nga xamante ni jëlee nañ ci congrès bi ñu def dimanche bala ci succès ñu ni jéego bi ñu jëkk a dox mooy ñëw ci sa jëmm ju màgg ji sa jëmm ju ji sa jëmm ji nga xamante ni jàmm moo tax suñu borom wàcce ko ci kaw suuf wàcce ko ci Sénégal jamono bu ne waxtu wu ne ñuy joxe prix Nobel de la dama naan waaw ñoom xanaa xamuñu góor bu baax kii nekk ci Sénégal bu xëyee suba ba ngoon di dox ci jàmm di ko dox ci ñanaaw yi di ko dox ci doomu aadama yi dundam lépp di jàmm ginnaaw bi nga xamee yéene laaj réew mi ñu ni dañuy ñëw ci yow ndaxte suñu parti bii de 2018 ba ñu koy sos laata ñu koo sos dañoo ñëwoon ci yow nga ñaanal ñun nag gis nañu ñaan ba tey jii ma nekk maire Thiès ba tey jii ñuy dox si sa département bëgg réew yow sax ñaan ci yow te wax la li ñu bëggee liggéeyal réew li ñu bëgg a tabax réew mi am yéene tabax ci ndigal dañ ko am yéene tabax ci ci bàq stabilité dal ci lañ ko am yéene moo taxoon ñu sàkku si ndigal waaye sàkku si ñaan bu baax a baax liggéey ci li nga xamante ne ko yéene liggéeyal ko Sénégal nga jàppale ñu ci Mbàkke waaw nga jàppale ñu ci nga jàppale ñu ko sax ñaan jàppale jàppalal la ci ñun wér a wér a wér ñu xam ko gëm ko moo tax ba ñu ni bala ñuy dem fenn génn kilifa wala ñuy génn di wax ak fenn ci askan wi Mbàkke ci yow la ñuy jëkk sàkku ñaan sàkku jàppale sàkku digal nga ñaanal lépp dellu nekk jàmmale ci askan wi ndax boobu ku la war a dimbali ci jàmmale lay dimbali ndax jàmmale jig ndax yaa njabootoo ñëpp yaa njabootoo àdduna yaay chargé su ak humanité bi nii asalaamaaleykum wa waaleykum salaam yu baax a baax mu ne Serigne Moustapha moom seen lakram waxoon na ko léegi mu ne wax na ko it taxawaay bi nga xam ne taxawaay tax taxawu kanam Serigne Moustapha seen lakram mu ne loolu rek doy na diggante ak moom mu ne kàddu yi ñu yëkkati na ko bu baax am na ci yaakaar bu baax a baax. mu ne kon jërë ngeen jëf. mu ne sant bu baax njiite bu baax a baax. mu ne yitte bu ñu gën a rëy ren gën ca. mu ne xam ne yitte ji rëy mu ne kon jëkk ne bu baax a baax. mu ne dana ñaan bu baax a baax.

Euh, ci ndigalu suñu sëriñ sëriñ Mouhamadou Moustapha Lakaram Mbacké ni bala ñuy seqi benn tànk rek nañu ñëw ci kilifa gu tedd gi di sëriñ Muntaxa ñu wax ko suñu yéenee ci Sénégal ñi wax ko liggéey bi ñu bëgg a sumb ci Sénégal ñi wax ko suñuy xalaat ak fu ñu bëgg a yóbbu réew mi kilifa gu baax gi kilifa gu tedd gi kilifa gu set gu sell gi ci ak mbaaxam dalal ñu ñu wax ko yéene jooju waaye ñu ni ko yéene ju ñu am ci senegal ñun dañu bëgg a tabax Sénégal ci jàmm waaye ak dal waaw projet gelawaar bi ñu am muy projet de transformation du Sénégal projet boobu dañ ko bëgg a tabax ci jàmm dañ ko bëgg a tabax ci dal ca ñëwaat fii nag war nañ fee mën a am yaakaar nañu njariñu ñaan googa bam tey moo ñu may ñu mën a ñëwaat fii di sumbaat beneen liggéey bu gën a yaatu bu jëm ci réew mi yëpp muy une candidature à la présidentielle bam ñu digloo euh, rafetlu na suñu taxawaay rafetlu na suñu kàddu yokk nañoo ñu gën a yokk yitte ndax ne ndax nit moom yitte rek moo koy may lépp waaw ñun de xam nañ ni réew mi bari na ay yàqu-yàqu li sooxee ci réew mi bari na waaye man projet bi ma am projet jàmm la Sénégal gi ma bëgg a tabax dama ko bëgg a tabax ci jàmm transformation yi ma bëgg a indi ci réew mi dama ko bëgg a indi ci jàmm ak dal ak stabilite waaye soxna si ku wax lii aussi wax la ca des li indi fitna ci réew mi dëgg dëgg dëgg mooy ak njubadi mooy ak jaay doole njubadi ak jaay doole day indi fitna day yee fitna ndax réew benn bànqaas a nii bi nga xam ne day indi dal ci réew mooy li ñuy tubaab di wax justice yoon te ku seetlu suñu réew yi xam ni yoon doxewul yoon doxewul dëgg doxewul maandu kon ku bëgg a dimbali jàmmit yaakaar naa ni ñi ŋànk réew mi wala ñi ŋànk yoon justice di séddale justice war nañ leen a ñaax ñu fexe ñoom tegu ci yoon tegu ci ak njub waaye bañ a jël justice rek def ko benn instrument boo xamante ni rek ku la neex nga dal ci ci moom loolu aussi lu su war a wax la lu su war a dénoncer la lu war a am taxawaay laat waaw kañaat bàkkaat wayaat dellu sulliwaat ndami soxna jaaraaki jaloorem nu ñaaxuwaat maam jaara ma dellu kañaat bakaat wayaat dellu sulliwaat ndami soxna jaaraaki jaloorem nu ñaaxuwaat maam jaara